waaleykum salaam wa maa ngi tudd pap Amadou Fall di journaliste jiite organe bu ñuy wax euh, La Gazette euh, waaye it yore site internet boo xam ne mi ngi tudd Gis Africa. xam nga nit ki booy tënk ci moom di nga euh, wax tuuti seen jaar-jaar ndax yàlla dogal na ma xam Moustapha 1998 boobu laa ubbi rajo Sud FM ci diwaanu Njaareem alhamdulilahi rabbil alamin mu nekk ci li nga xam ne moom mooy activité politique am presque mën nañu wax ni boobu la koy tàmbalee ba yàlla dogal ci kàttanam ak mbaaxam ñu falko li nga xam ne moom mooy président du parlement de la CEDEAO 1996 euh, dafa am jaar-jaar ba moo xam ni damay wax ni euh, ci li nga xam ne moom mooy taarix ci wàllu politique Euh, Moustapha Cissé Lo am na ko ndax di dugg say nawle yëpp jóg taxaw li ñuy wax par acclamation et à l'unanimité ñëpp ne yow la ñuy fal nangul nañ la ko loolu président de la république ki nga xam ne moom mooy Macky Sall moom moo joxo joxoñoon euh, Moustapha Cissé Lo ndax dañ ne woon ayu Sénégal la mu ne kon ayu Sénégal ki may jox li nga xam ne moom mooy raaya bi mu téyal ma ko mooy Moustapha Cissé ci parlement de la CEDEAO ñu def ñeenti at Moustapha di génn le 14 décembre ci fi nga xam ne moom mooy Abuja ca parlement ba député yi ñoom ñëpp jóg taxaw liir li nga xam ne moom mooy résolution résolution mooy kàddu boo xam ne ñoom ñëpp dañ cee tënku ne taaral nañu li nga xam ne moom mooy sa taxawaay yow Moustapha Cissé Lo kañ nañu li nga xam ne moom mooy sa taxawaay yow Moustapha Cissé Lo rafet nañu sa liggéey yow Moustapha Cissé Lo ndax yóbbu nga ma li nga xam ne moom mooy parlement bi fenn foo nga xam ni kenn mësu yegg ak moom ci wàllu mi nga xam ne moom mooy liggéey damay wax ni ndamu Sénégal ndam loo xam ni euh, kenn xamul nu mu toll ndax lii parlement CEDEAO ku xam euh, liggéey ba nga xam ne moom moo fa nekk euh, ca tàmbale ba mu doon 2000 ba fii mu toll tey nga gis Moustapha ni mu ko tuñee ci wàllu nga xam ne moom mooy liggéey ndax demoon nañ bañ ne ndax parlement bi euh, du rek tur xam ne wonu teg la ndax demoon ba nasax ci wàllu wi nga xam ne moom mooy liggéey bi yàqu laay wax ci wàll wi nga xam ne moom mooy taxawaayam tey foo dugg ci li nga xam ne moom mooy fukki réew ak juróom yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Afrique sow jant muy li ñuy wax ECOWAS muy mooy moo ci baatu tubaab moom mooy CEDEAO di nga bàyyi xel ne boo nee CEDEAO ñu ne la parlement boo nee CEDEAO ñu ne la Moustapha Cissé ndax askan wi ràññee nañ ko. ci wàll wi nga xam ne moom mooy jéego xam nga dafa am euh, loo xam ne moom lañ daan wax euh, le parle le parlement des états ba tey ñu ne le parlement des peuples le parlement des états mooy da ngay jàpp rek ne ñi nga xam ne moom mooy njiitu réew yi ñoom presque ñoom ñoo nekkoon ci li nga xam ne moom mooy bopp bopp bi ñoom lañ ci daan ràññee ci seen wàllu liggéey sax daan nañ bàyyi xel ci ne ndax ñii euh, li ñuy def jar na ko wala jaru ko du ndax dañuy nax askan wi rek ñu ne le parlement des peuples mooy muy yow muy man muy sa nawle bi nga xam ne moom moo nekk ci fa nga xam ne moom mooy Côte d'Ivoire wala Ghana wala Sierra Leone wala Libéria wala Guinée wala Nigéria fukk réew ak juróom yi ku ci nekk tey danaan man bokk naa ci li nga xam ne moom mooy CEDEAO ndax samay député ñoom ñoo ma fa teewal. fukk téeméer ak fukk ak juróom juróomi député la ñu tànn ci li nga xam ne moom mooy fukki réew ak juróomi ñu teew ca fa nga xam ne moom mooy foofa Moustapha Cissé Lo leen jiite bu rafet ba nga xam ne looloo ko may ndam li mu am ci génn bi nga xam ne moom mooy génn bu rafet bi waaye suuxat liggéey bi it façon boo nga xam ni tey député yi doon ñoo xam ni euh, euh, dañ naan waaw ñooñ de dañuy dem defi li nga xam ne moom mooy ay vacances ci fa nga xam ne moom mooy Abuja xam nga euh, ma nettali ko session bu mujj bi nga xam ne moom moo mujjee am Moustapha Cissé Lo dafa jóg taxaw ne député yi ku tardé ñu dagg la ndax ñoom ay indemnité lañ leen di jox waaw maanaam boo teewee ñu fay la boo teewul ñu fay la mu ne déedéet loolu moom dafay dakk rawatina nag session bi nga xam ne moom la mujj jiite ci fi nga xam ne moom mooy Abuja ne ku teewul. ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi ci ñetti ayubés yi nga xam ne wala weer wi nga xam ne moom lañ fi war a def ku teewul dinañ la dagg ba ñu yeggee ci ci pandaw ja am na ci ay député yoo xam ne dañ doon bëmb waaw lu tax ñu dagg ma lu tax ñu dagg ma lu tax ñu ma parce que loolu pas-pas ci wàll wi nga xam ne moom mooy njiit moom moo ko indi woon ba euh, li ñu mën a jàpp daal moom mooy yokk na. wàll wi nga xam ne moom mooy liggéey bi ndax fu ci nekk ci li nga xam ne moom mooy fukk réew ak juróom yi fu ci nekk teew nañ fa ci wàll wi nga xam ne moom mooy liggéey bi woon askan wi li nga xam ne moom mooy seen teewaay rawatina nag fànn boo xam ne dafa rëy te am solo ndax kaaraange tey ci li nga xam ne moom mooy Afrique sow jant dafa doon loo xam ne lu am solo la te kaaraange googu mooy li ñuy wax terroriste yi terroriste yi bi ñu mujjee boom juróom-ñaar fukki euh, soldaar ak ñaar. fi nga xam ne moom mooy Niger Moustapha dafa ànd ak ay député ñu dem ci la nga xam ne moom mooy jotaay boobu xaaju guddi parce que yàlla dogal na man ma teewee ca xaaju guddi quatre heures du matin la ñu départ ba ma ko jël avion wàcc fi nga xam ne moom mooy gaawoo ñu naan ndax dinañ dem wala duñ dem ndax ñeme nañu wala ñemewuñu ñu egg si gouverneur ba dalal ñu ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy kër gouverneur def waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa gaawoo ñun journalistes yi ñu ñu dar ñu ñu dox de euh, euh, ci li nga xam ne moom mooy biir gaawoo pour seet dëkk ba na mel njàmbaar fit fulla ak fayda wax dëgg fa yàlla ci foofu lay tënkee daaneel ci suma kàddu